li nga xam ne rek moo tax ma ñëw fi tey mooy euh, bi ñu yëgee mbir mi d'abord euh, Seydou sama mag la ndax euh, ñëpp xam nañ fi ma jaar ak moom mais aussi dama ñëw d'abord ci loolu témoigner ko suñu solidarité wax ko ne ñi ngi ci wetam mais aussi wax ko ne ko assemblée nationale yëpp ñi ngi ci wetam parce que le président Moustapha Niass ci boppam moo ma wax ne ma demal nga wax Seydou vraiment ne ko assemblée yëpp ñi ngi ci wetam lii nag. Eh, su amé japp na ne mu doon eh, lo xamanteni ni lu ñaaw la eh, te dañu koy ñaaw nag di ko condamné ba fu mu di wax nak aussi que état bi jël ay responsabilité pour que actes yi bañ fi amati parce que nak japp na ne moment bi nga xamanteni aduna bi ñi ngi am pandémie Sénégal président Djok, fexé di wuti ay vaccin pour population yu mucc économie bi ñu mën ko défarat ay nit ñoo xamante nii dara ñoru leen lu dul seen bopp ñu nekk di poser ay actes yoo xamante ne ni daf ñuy gën a jox dëgg gën ñu dëggal nag suñu jàppale ak suñu taxawaay ci wetu président de la République parce que lii mënul doon loo xamante nii dina tax suñu engagement dara wàññeeku yi si non non euh, dama naan sax da ko yokk donc loolu wax dëgg yàlla loo xamante ni la lu ñu ñaawul la te incha allah jàpp naa ne euh, yu mel nii euh, il faut que ñu fexe. Euh, mu deñ Sénégal parce que je l'ai dit dans ci benn émission tant que Macky Sall est président ci la République il amul a personne qui peut mën nga terroriser ou wala déstabiliser l'institution de la République